Gracias. sujet bi dafa nekk en actualité parce que fépp foo tourné ñëpp moom la ñuy waxtaane instant yi muy mm-hmm. diggante étudiants yi élèves yi ak seen ay professeurs mm-hmm. xam ngeen ni tey Sénégal ñu dañoo baaxoo ay valeurs yoo xamante ni macha allah suñu ay maam ñooñu ko bàyyi mais dafa mel ni que valeurs yi ni mel dafa commencé di naax saay naax saay bi ni mel euh, tax na muy feeñ ci ay comportement yoo xamante ni saa su ne dañ koy euh, gën di gis ci li nga xamante ni moom mooy ci dëkk bi rawatina ci milieu scolaire bi mm-hmm. euh, léegi dañuy gis ni que xale yi dañoo am benn comportement mais itam professeur dañoo yor benn comportement boo xamante ni c'est à déplorer mais aussi c'est à revoir euh, si yenn yoo xamante ni ay agression verbale léegi ñu dem ba yegg si euh, niveau boo xamante ni agression physique lañu lañu nekk di di dund si diggante professeur ak euh, étudiants yi mm-hmm. tey ji yaakaar naa ni école dafa nekk lieu boo xamante ni c'est pour dem jàngi fa xam-xam mais je pense c'est plus profond que ça parce que tey ji foofu nga nga fa mën a inculquer li nga xamante ni moom mooy ay valeur de respect mën faa jànge li nga mooy say valeur de justice mën faa xam lan mooy li nga xamante ni mooy say droit ay devoir en tant que citoyen bi nekk ci biir dëkk bi mhm. euh, monsieur Kassé euh, bi ma la dala ginnaaw ma la dalalee ba pare vraiment remercier la si euh, vraiment toogaay bi fii et teewaay bi tout dama lay laaj rek lan nga gisee école tey par rapport ak li nga xamante ni mooy ni ñu doon gisee école démb ak école tey yow ban jàngal nga si mën a am waaw euh, maa lay jaajëf également aw di jaajëfal sa conseil bi ci plateau bi également. di rafetlu euh, thème yi ngeen abordé tey te boo xoolee dafa dafa transversal tantôt ñi ngi wax affaire russe bi am en Chine. soxna si di wax si wàllum ceeb. loolu dafay rejoindre un petit peu rek wàllu wàllu civisme maanaam te civisme dafay commencer d'abord sur ta propre personne avant nga koy proposer dans ton environnement donc bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu ñu jéggee un petit dugg ci milieu milieu scolaire loo xam ne en fait léegi c'est comme si en fait école nekkatu référentiel pour réussir dans dans dans la société en fait. parce que dañoo nekk si cadre boo xam ne tey jii dañoo am de nouvelles figures de réussite. jàpp jigéen ñi léegi jàpp nañu ne école genre passe-temps la c'est pas un endroit dédié à la réussite. gis nañu léegi de nouvelles formes de réussite nit ñee ngi fecc nit ñee ngi way donc xale yi day jàpp ne kon loo koy école bii kat nekku fi laa mën a réussir. am na d'autres voies d'autres raccourcis yoo xam ne mën na ma permettre ma réussir donc du coup. Euh, bu ñu fay dem bu ñu fay dem ak yéene dans un premier temps dafay nekk ci loo xam ne ci wàllu euh, apprenant yi la mooy élèves yi moo xam étudiants yi la dans un dans une très large mesure dafay nekk ci wàllu bi nga xam ne euh, mooy ñiy jàngale parce que dafa am ñaari façon jàngalekat kiy jàngale par vocation ak kiy jàngale par accident mm-hmm. c'est différent man su ma fàttalikuñu suñu jamono les maîtres que nous avions à l'école boo toogee benn jour ñëw à l'école le même jour dina ñëw sa kër parent ah sa doom sangam kat gis ma ko lu xew mais léegi à la fois jàngalekat yi loolu yitteelu leen mhm. parents yi également lu yitteelu leen sa doom dinañ inscrire à l'école nga toog at boo xam ne xamoo exactement dans quoi il est mhm. xamoo ko koy jàngal xamoo est-ce qu'il est régulier à l'école ay notam xëy na sax doo ko sax lijjanti mhm. donc dafa nekk euh, euh, cocktail boo xam ne c'est tout ensemble de responsabilités. est-ce que nekkul ni que enseignement dafa commencer di sooxe parce que dans un premier temps. léegi mm-hmm. gis nañu niveau élèves niveau étudiants c'est devenu de plus en plus bas. Mm-hmm. gis nañu que aussi professeurs yi am na professeurs yoo ils sont pas formés da ngay professeur ba pare nekk directeur d'école ci loo xamante ni ko xamoo nan lañ koy defee est-ce que loolu tamit du impact ci li nga xamante mooy niveau d'études kii jàng bu fekkee niveau n'est pas si élevé mais kii jàng mënu fa jëlee lu baax également te boo fàttali ko bu baax à ce niveau c'est que état moo xaw a pêché à ce niveau parce que ñun bu ñu xoolee dañoo sukkandiku un petit ci ci ci instance internationale yi ñoo ñu dicté la conduite à tenir su ma fàttali ko le recrutement des des volontariats pas contre eux mais ni ñu ko defee on a vu que ni c'est en ce moment que l'école dafa commencer di sooxe parce que nit ñi la yoo xam ne par exemple si bëri euh, c'est pas des enseignants par vocation xëy na liggéey amul le chômage est criard bëgg nañ am fu ñu dugg ah ubbi nañ vaanu école xam na mu jàngale ji. Mhm. donc kooku mënu fa jàngal loo xam ne en fait lu tax ñuy wax mënu inculquer xale bi ay valeur xam-xam boo xam ne ëllëg dina ko mën a incarner. Mhm. donc état dafa dafa faillir à ce à ce niveau là. Mhm. donc euh, jàngalekat dafa dafa nekk un élément fondamental pour le développement d'une d'une nation du ku jug rek mën a jàngale. On a vu, il y a tellement d'écoles au Sénégal. On a la FASTEF, on a d'autres instances au niveau national yoo xam ne ñooy formé jàngalekat yi. Mhm. mais ni ñu ko bëgg def fast track xëy xëy rek dem jàngale ji je pense que loolu moom moo sooxeel jàng bi loolu yéen quel est ah, votre part de responsabilité par rapport à ça parce que loolu loolu dafa dem ba commencé ñoo jaaxal mhm. avant euh, ñi nga xamante ne professeurs yi ak enseignants c'était des icônes c'était des idoles ci ñi nga xamante ñoom ñooy élèves mhm. mais léegi dañoo gis ni que dafa commencé di amatul benn valeur en fait suñu bët parce que tey mhm. ni élève bi day di tongante ki nga xamante ne professeur am donc là il a un réel euh, part de responsabilité par rapport ak ki nga xamante ne mooy professeur am absolument te loolu dafa commencé d'abord au niveau parce que ñun auparavant je me yenn comportement yi soo ko amee euh, ci sa biir kër. même un passant un oncle quelque part qui passe gis nga am nommel am na sañ-sañ ñëw éduquer la yar la duma la xam na la say parents say parents encouragé ko mais tey jii kenn amatul sañ tey tey jii en fait dóor sa doom kenn amatul sañ donc li ñuy li ñu yaree ci foyer yi rek moom mooy répercuté wu au niveau de l'école mu dem ba élève buy agresse son professeur vous imaginez ñun suñu temps sa professeur mënu doo ko sax xool les yeux dans les yeux da nga am kersam parce que référence la pour yow modèle la à tout point de vue mm-hmm. donc euh, loolu moo sooxe éducation de de de base bi dañoo mel c'est comme si naa fa dem jéegaane li xew Europe bëgg ko ba ko eh, ba ko SMS euh, chez nous et que en fait diffèrent. Mhm. ci violence sax laay taxaw monsieur Kese parce que mhm. tamit jàppoon professeur am nañ ci part de responsabilité bu rëy parce que ñoom léegi dañuy gis comportement vraiment ça reste à désirer ñoom euh, euh, am na si ñoo xamante ni ñu neex nañuy solo vraiment taxaw di tey bu ñu demee cas de viol xam nañu mhm. là un réel problème est-ce que tamit loolu noonu jotul ñu taxawaat xoolaat mbir bu baax te xam ne jàngale ak def ay valeur bokkut ak leneen la nga xamante ni ñu ngi koy faral di gis ci école yi. ba mu yàgg na peut-être dañ ko dañ ko dañ ko ni sax dañ ko dañ ko doyoo doyoo voilà c'est ça dañ ko soofantal mm-hmm. soofantal muy raam te li raam si nag bi la jëm. Mm-hmm. bañ koo waree bañ ci waree taxaw yàgg na. Mm-hmm. Euh, donc ci noonu xam nga euh, c'est comme dans dans toute fonction am na si am na am na benn benn maturité boo xam ni da ko war a am avant muy mën a incarner yenn yenn yenn profession yi. parce que léegi on assiste très souvent à des jeunes ne euh, pratiquement tranche dage bi ak élèves yi peut-être ñoo xaw méngoo mhm. donc kiy jàngale il faut bu amul benn maturité benn dépassement dina mélanger les pinceaux dina jàng mélanger en fait fekk jàngale ak peut-être beneen cadre boo xam ne nii xëy na c'est dans un cadre plutôt relationnel plutôt plutôt amical donc ki ki ngay jàngal xëy na xale la deful la mënul def la part des choses mais kiy jàngale moo war a mat gu toll ne mu xam ne kii dama koy jàngal cadre bii moo ñu lié yow je pense yor na la. Mm-hmm. dans dans une école. deuxième année mm-hmm. voilà très bien donc euh, tàgguma sama bopp. Mm-hmm. mais je pense que am na benn benn benn benn conduite boo xam ne nii boo nekkee dans une salle de cours nga xam ne yow da nga a war a prodiguer ay connaissances. am na un minimum de comportement à avoir vis-à-vis de tes étudiantes surtout étudiantes yi. vis-à-vis de tes élèves également. pour yow lan moo wax changement boobu noonu tey jii ba fan yii rek gis nañ ko lycée euh, Blaise Diagne. Mhm. Euh, élève bi nga xamante ni en classe de cinquième xale bu ndaw jàpp professeur am dóor ko ba muy bëgg a dee euh, fi nga xamante ni aussi mooy Louga li ni mel jotoon na faa xew yow lan moo selon toi lan moo wax changement boobu ba nga xamante ni léegi élèves dañoo am sañ-sañ taxaw di dóoranteeg seen ay professeurs. crise des valeurs. Mhm. dañuy bëgg a jéegaane loo xam ne bokkul si ñun. Mhm. crise des valeurs. ki ki ki lay jàngal on dit très souvent que am na un droit de vie et de mort sur yow. Mhm. entre guillemets pour recette am ci pare rek maanaam jàngalekat bi ban rôle la am ci kii jàngal. Mhm. léegi on est une crise des valeurs. Mhm. ci kër yi léegi dafay xew. kenn mësu ko gis parents yi léegi talatuñu xool est-ce que sama doom son comportement est correct. est-ce ah, que wax correct aux parents dans un premier temps parce que éducation école continuité la. c'est à la base au a commencer comme ça voilà mu xam kat lii moo ko war lii waru ko soo demee à l'école lañ ko yaree ci kër gi rek moom lay continuer à l'école c'est dommage bu ñu la mal éduqué à la maison boo demee à l'école it sa professeur bu waxee nga tontu ko mhm. jusqu'à ce que ngay en venir au mais avec lui mhm. je pense que on est on est à un niveau xamante ji mhm. dañoo war defaat def état def état des états comment dire encore état généraux de l'école je pense que il est grand temps pour le pour un développement sans une bonne éducation. Mhm. c'est voué à l'échec. c'est vrai li mu wax dafa am solo tellement tellement awa parce que jamono jii nii fii nii professeur wala maître sa sañatoo corriger sa élève parce que boo ko corriger yow xamal ne après sa plainte mu ngi lay ngi mu ngi lay xaar day dem raconter du n'importe quoi à ses parents après parents yi du ñu essayer sax comprendre ñoom l'essentiel prof bi wala maître bi doon na doon na doon na seen doom automatiquement police li dem daal di porter plainte ki nga mooy mooy maître bi alors que pour amaan dindi yu jikko yu ñaaw yi yoo xamante ni mi ngi ci euh, ci euh, ci euh, ci xale bi dafa am mhm. loo xamante ni ci wàllum civisme Aïcha citoyenneté loo xamante ni comme li li professeur wax léegi nii gis nga école léegi dañ ko dañ ko doyandal dañ ko soofantal dafa am yu bëri yoo xamante ñun mm-hmm. ba ñuy jàng dafa daan am école man gisatuma ko par exemple euh, euh, école école primaire euh, Aïcha si tu bien dañ daan def ay ay ay groupe lundi ñi ñi ñooy bale classe mercredi mais loolu léegi amatul loolu ñuy wax tey jii ni ay cleaning day yooyu noonu amaana loolu buñ ko continuer woon di ko def ci xale yi duñu yegg si ci stade bi nga xamante ne léegi boy yi sax ñooy génn ci mbedd mi dafa sànni ay mbalit loo xamante nii ñun ñi sañuñu ko woon def parce que inculqué nañu ko ca école école ba initiative boo xam nga école bi ñoom ñoo koy jël euh, organiser noonu xale yi mm-hmm. a jàngal àdduna teel leen a wax ni que nii ak def mais ñoom malheureusement duñ koy def moi je pense que il n'y a pas meilleur lieu que l'école pour euh, développer l'esprit mm-hmm. euh, du Euh, li nga xamante ni moom mooy euh, euh, comportement professionnel bi c'est très important mhm. donc man je me pose la question à savoir que bu dee nii lañ naka continuer ñun fan lañ jëm mhm. parce que un pays où les valeurs sont bafouées à pied mhm. loolu noonu fan lañ jëm avec ces conditions ah mais en tout cas doy na waar parce que léegi crise de valeur bi ñu assisté nii maanaam éléments yi ko waral bari na bari na parce que boo xoolee léegi parce que sànq wax nga ko sànq euh, madame. Mm-hmm. kan nga sañ am fi tey jii ko à l'école dañuy former ay groupe d'élèves yu mm-hmm. bale tu n'oses plus le faire. déedéet parce que léegi à la maison ñu ngi woon ay ay yoo xam ne nii. Mm-hmm. ay réalités yoo xam ne bokkul ak ñun suñu réalité ñun li ñu xamoon si suñu suñu kër yi mooy même booy jàng à l'école boo xëyee am nga ko huit heures. six heures du matin nga yeewu. di nga bale raxas ndab raxas douche def lépp ci jigéen. doog a dem à l'école kooku bu demee ñu ne kaay bale classe bi du ci opposé wu mais bi ñu gëmee ne que non non non tu es une grande fille bale waru la da ngay jàng jàng rek nga war a def ça ne se passe pas comme ça yow sax yaay amul xëy na amoo grande sœur mais liggéey travaux ménagers yaa koy def avant ngay dem du la wàññi dara ñu conformé wu ci parents yi bëgg ko que ñu bañ ko mhm. école bi lii la ubbi nii la bëgg a doxalee mhm. règle yi ku ci bëgg nga conformé wu ci ku bëggul nga jël sa doom yóbbu feneen ama règlement intérieur dafay stipuler que ni mhm. waroo sax di sol ay déchiré bu dee xale waroo maquillé wu donc coiffure bi loolu yëpp dañ koy xool ñun école catholique leen jaar mais préfet bi si buntu bi la doon taxaw donc de 7 à 11 heures fa nga ko doon gis ñun dañ ko doon boo bu conformé wul ak loolu da ngay génn mm. am na parents yoo xam ne ñoom ñoo def scandale pour rek ñu bàyyi seen doom yi dàq yi ñu leen di dàq et tout mm. mais dañ leen di wax ni bu leen neexulee ngeen génn mm. donc mu nekk école boo xam ni macha allah jaar nañ fa mais regretté wuñ ko tellement que yi ñu jàngal ci ay bienfait éducation bi ni mu demee et tout ça moo tax ma ne école yi waruñ di xool ci humeuru professeur ci humeuru parents yi ah, ah. wala ci humeuru élèves yi pour que ñoom seen école mën a dox ñoom ñoo war a conformer def seen i règle ku ci conformé wu baax na ku ci conformé wu nga jël sa doom yóbbu feneen mm-hmm. sans règle moom dara du moom dara mhm. bi mooy fi ma fi waxee woon sànq ci ak thème mu Théodore Semedo bi mooy que ni que déjà dañu ne éducation te waxuñu rek enseignement jàngale mais éducation la ñuy wax éducation moom mooy yar teg mhm. nit ki ci yoon li nga xam ne moom la manqué ci këram ci mhm. këru waajuram bu ñëwee école bi mottali mais bu demee ba la ñu defar bu demee ba la ñu defar ca këram sax bu ñëwee ci école bi da koy dañ koy yàq am na neen lu mu doon muy kii sànq fat que mu ngi daal lu am solo mooy que boo demee -hmm.

kon ne yow ak say morom camarade yi mm. yéen yem mais également bu demee ba ki nga xam ne moom moo war a yor joxe éducation kooku tey moom moo dëng xamatuñu ñuy ah. def état mm. ñuy former enseignants yi léegi wax dëgg yàlla c'est pas c'est pas à désirer mm. des na lu bëri bëri bëri bëri bëri te loolu il faut ñu wax ci mais également ñu respecter professeurs yi jox leen seen cër bu ko defee ñëpp nawloo leen jox leen seen cër loolu la war a def tout à fait je suis parfaitement Euh, dafa am benn bouquin bu nu lire temps yi euh, maanaam par rapport à la soumission dont vous faites mention tout à l'heure mm. xam nga boo demee euh, zone yu mel ne ay asi xam nga Asie y a beaucoup de pays yoo xamante ji bi ñu accès à la souveraineté internationale Afrique pays yu bari ñoo rawoon dëkk yu bari ci côté yooyu mm-hmm. ñoom dañoo jël ñoom soumission maanaam yar maanaam yar def ko d'abord def ko viatique mm-hmm. donc c'est pourquoi dañu naan très souvent en Asie boo demee l'ordre est accepté mm-hmm. mais en Afrique l'ordre imposé pourquoi cette différenciation parce que quand l'ordre su fekkee ordre dañ ko dañ ko accepté bu amee police ou papa ou yaay déedéet lii waruma ko def bu sama cër mais quand c'est imposé bu fa policier nekkul nga def lu neex bu fa papa nekkul nga def la neex bu fa professeur nekkul nga def lu la neex donc ñun il faudrait que ñu jël suñu jël suñu jël suñu responsabilité yar suñuy njaboot à la base yar mooy la base de tout mooy bool bi nga xam ne boo ko raxasee lekk bu ci ñëw tegu kooku ku ne mën na mais su fekkee ndab dafa tilim lu lekk ba neex neex neex kenn du ko jëriñoo ah en certain moment dañuy gis ni que da ngay ba jàpp ni que sax tayeef la parce que sénégalais on a un problème d'impolitesse parce que li ñuy fii si dëkk bi bu ñu génnee suñu demoon à l'étranger euh, dans les pays européens ñemewuñ ko faa def donc benn instant dañuy jàpp que ñoom ñoo tey li ñuy def te ñu point bu sensible point bu important boo xamante ni nga xamante ni mooy état bi ci euh, bàyyi xel bu baax itam ñun nga xam ne ñooy élèves yi étudiants ci bàyyi xel parce que école bi la ñu mën a am ay hommes euh, des gens qui sont responsables des hommes qui sont conscients bokk na si li nga xamante ni mooy développer li nga xamante ni mooy réew donc ku nekk rek na ci def wareefam muy étudiant yi di parents d'élèves mais aussi di nga xamante ni moom mooy état bi hmm. ndaxte li ni mel vraiment buñ koy soofantal rek xam naa ni bu kanamee moom kenn du xam fan lañ jëm parce que mm-hmm. mbir mi dafay gën di détériorer chaque jour que Dieu fait donc li ni mel war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax war nañ cee bàyyi xel bala mm-hmm. ñoo yegg ci euh, loo xamante nii dañ naan dañ naan xamoon naa ko wala yoonam parce que mm-hmm. monsieur ki fi jóge sànq monsieur Kane mu ngi koy wax mu ngi naan lii buñ ko réglé dinañ fi toog gis euh, élève boo xamante ni dina dina rey professeur am wala professeur boo xamante ni dina rey élève am te ñu ko yàlla déjà fan ñi rek cas de meurtre yi bëri na euh, entre élève ak élève Aïcha bi si mujj Diourbel un élève de 13 rey euh, xeexax moroomu beneen moroomu 14 ans rey ñu yegg foo xamante mu rey ko imagine toi xale 13 ans déjà la la la mu rayee moroom ba fan fan la ko jëlee gis nga loolu il faut que sax ñuy commencer di contrôler dama sax wax commencer parce am na ñu koy def mais mm. nañuy contrôler bu baax mm. élèves yi li nga xamante moom la ñuy duggee ci biir ci biir école yi je me rappelle ndeysaan euh, madame euh, madame Mbaye lycée euh, juboo madame Mbaye mm. boo daa ñëw danga koy fekk ci buntu école bi mu mu mel ni daal moom commissaire sax la koy ñi ñi daan woowee ndeysaan tellement surtout envers ñun xale yi jigéen ñi dina contrôle la ñuy sol sa poche blouse sax dina si dugal loxoom xool lan moo nekk si sa ay poche blouse xam nga mm. yooyu yëpp dafa nekk yoo xamante ne dañ koy soofantal alors que non du lu du lu soof ay contrôle yoo xamante ne war nañ koy def de ce fait ñuy bañ di yegg ci stade yi nii accompagnement ci base bi la mhm. da ngay gis xale boo xamante xale bu am 13 ans bu demee ba yor ay gànnaay di ko di ko di ko jam mhm. moroomam wala mu di ko rey mhm. c'est parce que aussi parents yi am nañ ci part de responsabilité boobu noonu may ma rek ci fàtka yow mënoo yor sa doom mu am 2 jot amoo loo ko jënd lu cadeau pistolet amoo loo ko jënd lu cadeau épée mais xale boobu noonu bu bu màggee lu rek lay gis pour moom loolu moom moo baax xale bu ndaw juddoo ay épée kan moo ko jëndal sa doom dañoo ko dëgg nii xale bis nga parce que xale mhm. xale rek la tubaab bañ muy xamee ne doomam dafa autiste bu ko ay ay objet mhm. kon objet bi lu mhm. am solo la ci éducation wu xale bi te loolu également il faut ngeen wax ci nga xam moom nga war a def rek na nga ko def état na def rôle am yi nañu def seen rôle parents yi surtout aussi nañu def seen rôle et relation respect bi war a am entre professeur ak élève aussi na na réciproque ñoom ñaar ñëpp na ku nekk respecté sa morom de ce ñu mën a jógee ci cas mel ni euh, Awa Condé ñu daal lay euh, jaajëfal ci li nga xamante ni indiloon nga ñu ko tey mais ñu bàyyi professeur moom mu daal di tàggatoo ñu remercier ko. waaw xanaa di leen sant di leen gërëm rek di wax ne en fait ñi la réew mi soxla. Mhm. question d'actualité yi nga xamante ji dafa dafa dafa gangréné suñu société bi ñu toogee ko. Mhm. waxtaanee ko parce que en même les deux guerres mondiales. Mhm. on a fini par trouver une solution bu ñu waxtaanee rek. Mhm. Mhm. merci beaucoup monsieur Kassé ñu ngi lay jaajëfal bu baax. awa yow aussi ñu ngi lay jaajëfal yow sama professeur deuxième année vraiment nekk bu modèle di ko jaajëfal si waxtaan bu am solo bi. mais itam di wax nit ñi ñu gën a xel rek si li ni mel ndaxte éducation dafa doon point bu important donc nañ ci gën a xel ci surtout ci jikko yi comportement ndaxte comportement moom mooy lépp mm-hmm. et puis di leen jox euh, dox daje mardi prochain si beneen seetlu euh, boo xamante ne dina leen yitteel incha allah d'accord incha allah mm-hmm. merci beaucoup Awa Konde xale bu moitié yaru bi moitié autre chose ñu ngi leen jaajëfal jox la rendez-vous semaine prochaine incha allah dañuy daal di ñëw léegi-léegi ñu amal une courte pause daal di